mbokk yi képp kuy patriote maa ngi lay ñaan nga déglu sama audio bi bu baax a baax a baax te boo ko mënee partagé na nga ko partagé mbokk yi nañu dalal xel yi xam ne fii suñu borom rek a fi nekk mbokk yi maa ngi leen di ñaan képp koo xam ne fi nga nekk lépp loo mën si ñaan na nga ko ñaanal jëmm jii di Ousmane Sonko mbokk mi nañu gën a dalal xel yi xam ne lu dul dëggu du yàgg li ñu doon xaar ay at di ko xaar ay bés di ko xaar ay simili incha allahu lépp dina nekk te incha allah sunu yaakaar du tas suñu borom xam na li nekk suñu xol yi te dinañu ko jàppale lu mu métti métti luñ mën a dégg luñ mën a foog nañ jàpp ne lenn rek moo mën a nekk mooy uns incha allahu Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi 2024 te incha allahu dina jël li nga xamante ne moo di président bi toog ci dëkk bi defar dëkk bi benn bëgg-bëgg boobu rek lañu am te suñu borom li nekk si xol lay xool te li nekk suñu xol mu doon lu dëgg yàgg koo xeex lu métti bu nekk teg nañu ko incha allahu lépp lépp dinañ si am yaakaar bu baax a baax li nga xamante ne ànd nañ ko boobaak léegi di ko xeex bu ñu waxee nag xeex nit ñi dañoo jàppale yëkkati ay ngànnaay non non nit ki fi nga nekk say kàddu sax mën nga koo xeex kon nañuy jéem di jàppalante suñu biir nit ñi ñi mën a wàcc nañu wàcc xam ne que carrément que incha wàcc bi mooy toog xam ne que tey jii mooy bésub dëgg bi te dëgg bi mooy incha allah ñu jël Ousmane Sonko dugal ko ci liste yi mu bokk ci élection yi jël élection yi toog ci réew bi defar ko ni mu ko bëggee benn yéene képp lam am ñun ànd nañu usman songo Sonko wala nii wala naa li tax ñu ànd ak moom mooy lan dëgg bi mu dëgg ak bëgg bi mu bëgg senegal benn yéene rekk la mooy defar Sénégal benn yéene rekk la am jël ñëpp ku nekk ca la nga nekk di si gis sa bopp di si yëg sa bopp di ci jàppale mbokki bi maa ngi lay ñaan bu dee sama kàddu bi lenn def seen dëgg nga jéggal ma lenn rekk moom ma tax a jóg mooy defar ak bëgg-bëgg bi nga xam ne am nañ ko jëmale ko ci jëmm jilee lépp lu jub nag ngay xamante ne si ndimbal suñu borom la lu baax rek moo ñu taxoon jóg maa ngi leen di ñaan ngeen jël sama audio bi partagé ko lépp loolu la mën ci partagé na ngeen ko def jaa jëf